ak am waxtaan ak kilifa yoo xam ne ñu ngi si biir réew mi. ma ma jàkkaarloo nag ak suma oncle muy oncle Fallen Sonko mi nga xamante ne mooy um, regional chairman bu um, United Democratic Party si KMC oncle um, na nga def. yaa asubila mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim Baalo maa ngi laa fay eh, maa laa wax happy korité maa ngi ñaanal Gambie yëpp lu ko dalee Kaatom ba koy na maa ngi wis Gambie yëpp yal yàlla jégal suñu bàkkaar yëpp. nangul ñu suñ koor yi jégal ñu suñ bàkkaar yàlla aar ñu aar réew mi te corona bu ñoo wax tamit yal na ko yàlla da jeexal si jamono maa ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla jeexal si jamono yéen tamit yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla dimbale bëgg naa trop te gis nga ko bi ngaa ñëw sax yaa ngi jógee si suma xarit mooy alaaji undaañang maa ngi ko ñaanal wér-gu-yaram ak fan bu gudda ak njabootam bi yëpp maa ngi ñaanal jabaram tamit ak njabootam bi yëpp maa ngi ko wax ne jërëjëf sali boobu gis naa ko indil nga ko loolooy Gambia ñun ñoo bokka ne ñoo bokka baay Gambia benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar kenn xajul suñu diggante asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf uncle Falang ah, mu ngi mel ni eh, tey kon nu ma ko waxee bés bu am solo la ah, bés bu am barke bi nga xamante ne jullit yi or nañ mu weeri koor bi jeexee ñu fas yéene nag julli tey moo tax ñu ñëw nag jóg waxtaan ak yow. ak ñu mel ni yow am si réew mi ah, ndaxte réew mi jaama rek moo ko mën a yóbbu si kanam lu ma laa laajte rek léegi la moo nekk sa korité message waaw su ma korité message tu Gambie mooy ne dafa am lu xew si Gambie muy lu daw yaram mooy loo xam ne maa ko koo ñaawlu maa ngi koo ndax su ma toogee maa ngi nuyu his excellency président Adama Barrow maa ngi koo ñaanal jàmm maa ngi koo ñaanal pour en bi mun a di si boppam waaye man ni ma ko gisee mooy ne his a failure dafa ni li li mooy dëgg because du ma mun a understand leen na fi mu nekk nii Gambia dañ toll foo xam ne dañ war a jàppante ñu bokkandee bokka baay nekk benn waaye yow soo toogee koo xam ne dafa bugg a jigéen président bi rek dafa mel ni rek moom li moo tray mooy ne xaaral ma wax Ousseynou Daabo lu ko naxari oo xaaral ma xas ko oo xaaral ma wax ko lu métti su ko defee man dinaa mën a jigéen président bi kooku mun naa boole ni ñu nekk benn ma foog ne moom si boppam moo war a taxaw ne kilifa dañ koo cëral dañ koo orma dañ koo buuñaa bugguma kenn di xas kilifa suma kanam especially di yuus suma tur man di xas kilifa especially ñu far suma parti di xas kilifa yow soo nekkee kilifa te moom mooy kilifa Gambien yëpp en boobu yàlla moom la ko sant bon lana tax moom muy nangu waa partem o ñi ànd ak moom ñuy xas kilifa bon suñ ne nañ leen bàyyi xasante dina fi jeex du mun a jeex soññe nañ bàyyi xasante kilifa bi si boppam moo war a bàyyi xasante nañ njabootam ne bëgguma gis kenn muy xas kenn ñun ñëpp benn lañ Gambia ñun ñëpp benn lañ nañ bokka nay bokka baay man de politique mënumaa kenn du yaa ngi jógee nii si unda dama ko ko mu jox sama sali du def na ko jox nga ko loolu ko gën a rafet politique du ma booleeg moom ñun ñoo bokka ndey ñun ñoo bokka gaay Gambia nañ jàppante ne ñun ñoo bokka ndey ñoo bokka baay bu ñu politique boole bu ñu nangu politique seen boole mais especially utkati place yi ñoom dañ foog ne ne ku xasul Ousseynou Dabo rek Barrow du la jox place loolooy lan loolu laa bugg a Gambien yi bàyyi nañ leen bàyyi par parloo diw lii la diw lii la nañ leen ko tegee boor nañ leen toppa suñu agenda ak suñu policy di wax nit ñi suñ programme ak suñ policy rather than ñuy xasante diw nii la mel diw nii la mel du yóbbu Gambia fenn fii kenn mënu fee xas kenn ko fi xas yaag moom a bokka ko fi xas xam na la mbaa mu xam sa njaboot oo oh, xamal na la loo xam ne su ko waxee nga xar suuf si dugga si bon nag xasante jar na ko nañ leen bàyyi xasante nañ leen bàyyi saagawante nañ leen bàyyi tuumalante nañ leen bàyyi yàqante nañ bokka ndey bokka bàyyi mun a liggéey Gambia gis nga fekk defuñ ko duñ a yóbbu Gambia si kanam duñ mun a liggéey Gambia man nag looloo suma responsabilité boole Gambia ni ñu bokka ndey bokka bàyyi ñun ñoo bokka ndey ñoo bokka bàyyi Gambia less than two million people war nañoo mun a jàppante bokka ndey bokka bàyyi liggéey lu yóbbu réew mi kanam waaye suñ nekkul benn duñ mun a yóbbu réew mi kanam it's not possible suñ ko waxi dañoo nax suñ bopp rek foog ñu yaatal suñu xol yi tàppe xol yi ñu bokkandee bokka baay mun a liggéey réew mi waaye fekk defuñ ko duñ mun a liggéey réew mi réew duñ ko liggéey si xasante réew duñ ko liggéey si saagawante réew duñ ko liggéey si ŋaañuwante réew duñ ko liggéey si toppante nañ bokkandee bokka baay liggéey suñu réew yóbbu suñu réew kanam te Gambie su rëccee ñun ñëpp ñu rëcca waaye su Gambie rëccut kenn du rëcca bon nag maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp te maa ngi digal nit ñi liggéeykat yi nañ leen bàyyi suñu xel li ñoo dégg ñaaw na de 600 and ñaata million 400 million 300 million fu ñu jëm département yëpp suñ buggee nekk sàcckat bon kanay liggéey réew mi nañ leen bàyyi suñu xel alali askan bi nañ leen jéem a boole jël alalis askan bi saytu ko sàmm ko xam ne kenn ku nekk da nga am responsabilité yoomal xiyaam dinañ la laaj sa responsabilité bon nag nañ bàyyi xel si loolu alali jàmbur alali askan alali askan la kenn moomu ko bon nag nañ ko saytu nañ ko liggéey dugal ko fu ñu ko war liggéey bëgg naa si yow trop maa ngi ñaanal Gambie yëpp maa ngi leen daa wax ne eh, Ramadan Mubarak xam nga laajoon nga ma ko. nga ne ma parlementaire élection bi li mu ñëw ne ma ne la bettu dina am ndax bettu amut xam nga waxoon naa la ko mu nga bettu dina am te waxoon naa la ne bettu amut te am na li ma la wax tamit ne la gan yi ñoo tax his excellency président Adama Barrow win élection waaye du Gambia ñi bu gan yi ñëw sànni lan nga gis te si soobee yàlla maa ngi yàq wax gan yi ne leen ñu dugal si système bi nañ mandu tooñ baaxut yàlla buggu tooñ nañ génnee seen gémmiñ si élection yi Gambia nañ génnee seen loxo si élection yi Gambia ñu bàyyee ko Gambia ñu ñu fal ku ñu neex tànn ku ñu óolu lii lañ bugga tooñ baaxut yàlla buggul tooñ te maa ngi leen a gërëm tamit di leen sant luñ toog mandu bañ a bokk suñu élection dëgg la am na ñu ñëw waaye am na ñoo xam ne ñëwuñ ñi nga xam ne nag jël nañ yàlla ñëwuñ xam ne tooñ baaxut maa ngi leen a gërëm si loolu maa ngi leen a sant te maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñoom nag xam ne Gambie ñu ñoo bokka ndey bokka baay maa ngi ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf ok jërëjëf